mbégteeg bànneex lañ leen di wax saa su nekk rek ci topp bi nga xamante ne yeneen ñu koy topp ci site internet bi di Buzz Actu 221 li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy doo rek kii di Amadou Mame jóop bi nga xamante ne rek jot na dalal nag ap visite yoo xamante ne rek ci député saoudien yi kii di Amadou Mame Diop nee na nag eh, Sénégal ak Arabie Saoudite ay réew loo yoo xamante ne rek ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ay mag ak lañ ginnaaw kaddu yi nga xamante ne président bu assemblée nationale bu Sénégal daal di woon na koy yëkkati di Amadou Mame Diop mi nga xamante ne rek uh, dalaloon na nag ay député yoo xamante ne rek ay député saoudien la ngir nag waxtaanee coopération parlementaire bi dox ci diggante ñaari réew yi ne nañ nag ñoom ci seen bopp dañoo ñëw rek ngir waxtaan bu boobaa rek ñu mën a xool naka la ñuy gisee ay yoon ak ay moyens ngir gën a coopération bi nga xamante ne rek ñaari réew yi séq nañu ko ñu daal di koy affirmer ci ab communiqué bu bu Sénégal ma tudd rek chef chef délégation saoudien bi di Saleh Fadel moom mi nga xamante ne rek mbégte rek lay daal di am ci relation xaritoo bi dox ci diggante Dakar ak Riyad Sénégal nekk na réew boo xamante ne rek kii di Arabie Saoudi da ko daal di bëgg lool rawatina rek royaume bu saoudien mi nga xamante ne rek Dakar daal di considéré comme partenaire am bu njëkk ginnaaw rek li nga xamante ne rek moom moo ñeel important ak fidélité bi nga xamante ne daal nañ koy fidèle ci réewu Afrique yëpp ci côté nag kii di Amadou Mame Diop daal dinay yooyu nekkoon dëkkoon ganam yooyu jóge woon Arabie Saoudi nag ñu ngi joué bu am solo rek ci marché organisation bi ñeel coopération islamique bi ne nañ nag partenaire bu mag la ak Sénégal Arabie Saoudi nag ba ngay daal di soutien rek ma ngay daal di soutenir projet yu am solo yi nga xamante ne rek daal di nañ koy def ñeel développement fii ci biir réew mi ci domaine yëpp bu ñu sukkandikoo nag ci Amadou Mame Diop ne na séjour bi nga xamante ne rek def nañ ko fii ci Sénégal de la délégation saoudienne bi nag jot nañu gisante ak yeneen autorité ku ci mel ni nag ministre d' intégration africaine et des affaires étrangères di Yacine Fall jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir dara bañ leen a raw.